Bienvenue sur Salam Vision. asalaamaaleykum mbokk yi ñu ngi leen bu baax tey di kontaan bu baax a taamu bi ngeen taamu seen site internet Salam Vision ñëwati naa ci li nga xam ne moo xew ci dëkk bi li xew ci dëkk bi man maa koy wax neex tuuti ma di kër gi di xew ci dëkk bi. li xew na ci nga xam ne mooy Cheikh Omar Diagne bi nga xam ne moo fi tëkku woon Ghana. moom moo ko wax jooju noonu Cheikh Omar Diagne nag ku ne xam na ko moom moom ngeen gis nii sama ginnaaw kanamam moom Sénégal yëpp ku ko xam moom nekk na mag moo xam ne nii ay kàddoom yëpp comme sexe dong lay waxtaane léegi nag am na kàddu yoo xam ne nii def na yëkkati ci wax ci ay wax ñaaw loo xam ne ni daal nañ ko seetaan la ñëw ba am nay baax nit da daan wax loo xam ne nii ku ko dégg mën cee jaar waaye moom foo fekk ay wax weer naa xam nga yàlla bi mu bindee nii dafa sànni benn ngelaw ci doomu aadama ngelaw boobu la góor jigéen yi bëgg a rey bu ngelaw yi dee rek àdduna du tukki ngelaw boobu boo gisee jigéen rek lay yëngu te mën nga ma xool du ñaar mais jigéen da ngay xoolaat na waa gars match bi fu mu toll noonu jëm bu ngay xool mais am na benn ngelaw bu nekk ci yow moo tàng ngelaw bi nag nu mu gën a gaaw a tàngee rek ngay gën a gaaw a koddale xaw ma maanaam mbirum kat lu ñu war a jàngale olof dafa riis de suñ ne ana diw mu ne sëy na luy sëy sëy mooy olof moom ci digg bi la koy wax. waa gis ñoo ko déggaloo ko seetaan élément ne benn xamal jaani wax na ko waaye nag ku ñu bett la ndax àdduna boo ci nekkee ay nit la bàyyi xel da wax loo xam ne nii ñoom ñi lay mën nañ cee jàngee waaye nag. uuteeg père Mangore ba nga xam ne mu ngi liggéeyee vingt cinq mille ndax moom it nee na ay jamono bu mësaana gis pooju jigéen bu ngeen xamul pooj mooy lupp nee na bu mësaana gis dootul ne dootul nelaw ba yaayam ci boppam da koy delloo si du ko xëcc du ko tax ci boppam naan ko doo gis nañ ko daal vraiment boobu day ñëw. laa ilaha illallah sunu génération laa doon Mouhamed bun Abdallah Dionne daaw nu gis ab lupp. foo koy gisee ci këru àdduna soo na dox ba gis jigéen ju la sàgganu wala dara yow mën nga koo tëdd opp sax weer ndax loolu nga gis di ko bëgg a dañ kumpa ba mujj da ngay dem sa maam di la woo naan la teeyal defal nangam nangam ak nangam pour génne ci sam xel waaye dina xam ne yow mii am na lu nga naan ko maam gis naa loo am karaw gis naa nangam mu ne la toogal nàngam ak nangam ak nangam boobu xamuñu loolu. waaw. Père Ngoye moo wax loolu. nee waaw mais xale yi léegi dañoo bëgg boot loolu tamit bokk na ci li ne ni moo xew si dëkk bi waaw benn ngoone yow yaa ngi si jaamu yàgg xale yi nañ xool ci yow bu mu xoolee ci yow moom bu soobee yàlla exemple nga waaw waaye bu loolu jàllee li gën a fees bokk na ci li nga xam ne mooy waa Soleil Levant ñoom it am na jaxasoo bu métti boo xam ne nii am na ci seen biir gis la ak mën di xew ni ngeen ko waxtaanee loolu moo gën waaw waaye dañu génn ci ay jële waxtaan ci def na ma nangam ci def na ma nangam loolu solo amul solo ku ci mel ne bii génn na wax na wax doo xam ne nii nag ñëpp a koy météo waaye sax na tontu na ko ndax bii nee na booy jaay fa la amee oto nañ ko seetaan te ñëw waaye bii yow boo amee oto ah déet ah Agnam loo wax ci loolu ah kon nag ñoo ko déggandoo waaye nag saa neex am na lu mu ko tontu saa neex ah, na polygame balaa amee woto yow it loo wax ci loolu. dégg nga saa neex waxuma la ay waxi far loolu lépp waxuma la ko ñaar yow déet bul dugg ci loolu ah comme li mu wax am nga dem seeti Baye Fall parce que Baye Fall moom it wax na nee na moom it daa nañ ko fay waaye lañ ko daan fay daaw ko yàq daaw ko duggee daaw ko naanee Baye Fall yooyu loo wax. waaw ñoom de wéeri wéeri bi ma ciy tourné doon nañ a fay man wax dëgg yàlla. Hmm. daan na la fay lu duun aussi. waaw doon nañ ma fay rek deux cent mille mooy li ma doon bañ a wax ay ati at di ko nëbbu comme ñoom bi ñu génnee wax nañ ko duma ko bañ a wax. duma ko deux cent mille par weer wala par séquence. deux cent mille par weer. waaye 200 mille yooyu ñu ma doon fay par weer naanu ma ci woon sàngara lekkuma ko woon toxewuma ko yàmba yóbbuma ko woon ci jigéen ñi. ci loxob saako la daan dugg yaa ngi may dégg bu baax li ma lay wax. Mm, yëkkatil micro bi tuuti. Mm. salaire yu ci bari bu tegoo ci sama loxo bu ma ñëwee enveloppe bi laay jox saako defal ma ci nangam defal léeg-léeg sax mu ne ma jeex na ma ne ko non loolu nan la jeexe mu expliqué ma ma ne ko dox nga dëgg de saako ngi nii toog du ma bàyyi ma fen de man sama doom la du ma fen ci kanamam. Mm. salaire yu ndax mu salaire bi man bi ñoo doon jox mi defe naa salaire ru euh, nga daan journée par tournée par jour. par exemple sax wala par weer xamuma ko sax xamuma wax la benn affaire. wiri wiri tourné nañ ko ba biñ koy commencé man yaakaaruma ci woon ay salaire kóllëre laa amoon ak Sanekh mu woo ma ñu ne dañ laa bëgg def jëkkëru abi ci benn film bu ñuy tourné man leen bisimilah loolu dana kii ñu ne ma waaw da nga ci am salaire am ci li mm. waaye lañ ma jox wax dëgg yàlla sax amu woon problème ñu buñ ma ko joxul sax ma dem parce ñooñu dama leen tegoon defoon comme sama bopp buñ ma fayee dinaa tourné buñ ma fayul dinaa tourné mm. ba ci bi ba ci biñ amee problème ñoom ñëpp bàyyi déglu bu baax li ma lay mm. ñëpp bàyyi maa ngi ñoom la ñetti nit a doon tourné wala ñeent te loolu sénégalais yi doon seetaan mosuñu koo xam man ay benn séquence lañ ma doon jox par semaine waaye daa mujj ñu may jox ñaar parce que vide dafa bari vide bi dafa bari. ci biir tournage biir biir yi. ñëpp bàyyi ni bu ñu leen fayul ndàngam wala bu ñu leen defalul contrat man sama contrat bi mu ñëwee keroog ma koo liir ndax jàngu ma sama nasaraan soriwul. dama ko doon liir loolu ñu ne bàyyi nag ku am sa contrat yaa ko nga xam. Hmm. mi yaa dégg kon man du xaalis mu may fay ak buñ ma fayul du ma mës a toog fenn naan fayuñu ma woon ci wiiri wiiri du ma ko mm. def mm. doon nañ ma fay lañ ma bu ma jaralu jaral na ma parce que ku yaakaarul woon fay kay bu ñu la doon jox deux cent mille kay nga daw bërëb d'accord moo tolloon foo xam ne ay artistes deux cent mille moo fayul artistes mm. na kon kon nañu wax ni appuyé wu nga vraiment ci kàddu ki nga xamee ni mooy. Euh, non non man ñooñu sama yoon loolu coow loolu sama yoon. waaw gis nga bi ñu teeree Baye Fall ba ñëw dugg Baye Fall dañ ko wax naan Baye Fall nee na daan nañ ko fay waaye nañ ko daan fay daaw ko yàq daaw ko naanee kon ñoo ko jëndoo. waaw mii li gën a fës tamit bokk na ci li nga xam ne mooy wàññi dund gi nga xam ne Macky Sall wàññi na dund gi waaw loolu moom xam naa ñu sant Fall ak ñu sant Diop loolu dañ ci kontaan waaw loolu moom dañ ci kontaan léegi nañ seetaan ci la maa bi nga xam ne Macky Sall moom moom bitig nag yéen laay bu leen fontoo nit ñi bu nee yokk ngeen yokk bu nee wàññi ngeen ne duñ ndax li ngeen dee woon bu leen ñu fontoo ñaam waxal ak ñii bu leen ñu fontoo dañoo sonn te ñaam doy na yow sa ambiance day mat da ngaa ëppal ndax loolu rek baax na waaw nañ seetaan bi ñëw adduna ñu toll mooy souffrir ndax ñaari mbir bi si jiitu mooy jàngoro mbas mi ak conséquence bi mu am ci production ci rupture des chaînes logistiques ci trafic maritime yokk-yokk bi mu am ci àdduna bi impacté njëg yi waaye tam bi guerru Ukraine tàmbalee ba léegi weeru février bi ñu génn ah, gis nañu loolu aussi li mu indi si jafe-jafe ci àdduna bi njëg yëpp yokk looloo waraloon nag depuis mois de mai ñun ñu taxawaloon maanaam ñu teeru conséquences yi xaaral ñu rek ba mu dal si nit ñi ndax boobu ba léegi suñu gouvernement taxaw na jël mesure yu doy ci wàllu jàppale njaboot gi toll si juróom-benni téeméer ak ñaar fukki milliards si suñu koppar rëy. dafa mel ne lii moo gënoon a fës ci li nga xam ne mooy jàngatu bés di xew ci dëkk bi ngeen ànd ak seen bopp góor gi benn di xew ci dëkk bi maa ko jox maa ngi leen di jox déggee ba beneen yoon incha allah di xew ci dëkk bi. Thank you. Bienvenue sur Salam Vision.